boo xam ne fan yii ñëw muy kii di Waly Balago Seck am yenn sëriñ yoo xam ne génn naan Waly day seet Waly ku dem si. Waly li muy def àdduna yëpp teg nañ seet ba bët day woy di bëggee kenn gisul Waly Seck di sëriñ to wala muy muy muy seet. Ah, woy lay def di bëggal doomi aadama yi di jàppale doomi aadama yi nañu bàyyi jàmbur wax nañoo wax ba xamatul lu nga ñu ne ko seetkat nga eh Sénégal a mën a wax. kooku sëriñ la de. ma ne Sénégal a mën a wax. day seet comme li ma la wax la mu wax dara du ci dëgg man soxna ko Wally sekk li muy def ñëpp ngi ciy teg ba day day day bëggee di way di seral xolu doomi aadama c'est le c'est le centre des jeunes loolu la wax wax ah? centre du peuple du peuple kon nag nañu bàyyi Wally wax nañ ko lu ne waxal nañ ko ko léegi nag seetkat lañ ko jiiñ waaye yow dëkk bee toj lii la mu doon nee na concert bii di ñëw waa mhm. c'est concert bi muy def grand théâtre ku fa dem sa yaram sa araam na safara bu dee kàddu mu lay def <laughs> <laughs> mais bi dee na man bi loolu laa dégg moom ba ma ko déggee ni laa reewee. <laughs> non non non non non non non non c'est grave c'est grave. mais mais nag yéen loolu on passe non on passe loolu moom mënu ma job loolu moom dafa mel ni affaire comédien la moom vraiment loolu du ma ci wax vraiment. mais jota jotul kon fu mu toll nii. ngeen xoolaat maanaam yéen seen milieu bi lu waay génn wax. ku génn déet ak ña ka fay wax déet bàyyil ba mu ñëw. bu toogee fii. Mm-hmm. nga ne ko la nga wax nangam ak nangam la nga wax daal moom la concerné man loolu concerné wu ma man daal lii di jëmale askan wi ci kanam. waaw mais loolu li nga xam ne non non non ma ne man borom xel yi sell yi laay waxal. attention mm-hmm. borom xel yi sell yi yaara suñu borom sax ba muy wax dane borom xel yi sell yi laay waxal waxuma ak dof de man wax ay dof taxuñu may wax. ci rëy société bi lañ dëkk nag mais xam nga am na du dof dañ yaakaar ne ñii simmee ko def taat nee ni ci mbedd mel déedéet dof yaa ngi ci biir nit ñi jaxasoog nit ñi naan bu ngi defee bu ngi demee baal ñu dem baal dof yaa ngi ci biir nit ñi jaxasoog ñoom xam nga ne dof mënut a weesu nga naan dégg nga maam Wally Seck ab seetkat laak Wally Seck bu dem fee bàkkaaram xoolal bii di ñëw bëgguma wax ci waale loo xam ne nag sa ndax waale sama doom la dama ko bëggal sama bopp man man seetkat yi man jaaxal ngeen mën a mel na yéen seetkat yëpp ne waale sama doom la waaw dafa baax dañu gis la muy def mu baax loolu dafa baax mbaax rek ma ko may loolu Sidy sa doom ah Sidy Diop ah, doom la ci biir dëkk mi ngi ci ci dëkk bi doom la mais nu waaye sekk nu mel nu mel si yow yow tamit si bon je sais pas waale xam nga nag la xol la mooy tànn xol mhm. c'est le cœur c'est waale mon cœur c'est waale danaa neex ak ay mbokk Sidi bokk maa Sidi yow ko yaa boole. ma déet ba ma boole Sidi ak mbokk Sidi ñëpp ay doom doom lañu. daal ma jur leen yaa ma ne waalo ci waalo ngeen doon wax ci waale laay wax. a rof Sidi. bu ma dugal ci euh, ne xaw ma ko. Hmm. vraiment vrai dire je je suis désolé. je suis désolé. voilà. l'intellectuel xool waale ba mu neex la nga ne ab seetkat la <laughs> yow war nañ laa xool war nañ jox la ay comprimé nga naan. da nga jàpp ne daa dof. Ah bu dee jigéen la elle est bu dee góor la il est complètement fou il est complètement dingue. c'est ça que li ma wax li ma wax nii. non ne kii maa ko tooñ maa ko joxor bi man. kii wax ne Wally Seck seetkat la man Soxna Fall maa ko joxor bi. maa ko ne il est fou. mais mais waroo tooñ. parce que léegi la tooñ déggoo li ma la wax kii moo ñu tooñ. moom mi xool doomi jaan moom mu nekk ko mën naan ab seetkat la bu dem mu ko wax seetkat Wally Seck mii bàyyi leen jàmbur wàcc leen xale bi. mais moom ku waxee waxalu ko dafa descendé xale bi sonn na ba leen jàmbur. bañ nag ba woy na ko bàyyi leen jàmbur nag il est temps dañ ko war a may jàmm. avocat de Wally Ballago Seck jërëjëf yaay booy. waaw.